أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid tey ñuy jël juróomeelu dars ci boppu aaye bi yàlla di wax ne alam tara ila alladina yazcumuun annahum aamanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduuna an yataxaakamu ila taaxut mu nekk fanweeri lu bunt ak juróom ñett ci téere bi waaye ci dars bi tey nekk juróomeelu dars tey biñ ciy jël mooy wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allah wa ila arrasuli raayta almunafiqina yasudduuna anka suduuda sunu boroom dafa am ñenn ci ay xeet ay nit yu nekk ci biir jullit yi di askanele seen bopp ci jullit yi di julli di woor di joxe azaka di def lépp waaye sunu borom nee na ñooñu safara lañ jëm lu tax ndax dañoo am màndargay naafiq naafiq mooy kuy feeñal ngëm di nëbb dëgg soo dajeeg moom kanamam kanamu Abubakar la waaye xol bu xol bu Abu Jahlin la loolu mooy an nifaaq lan moo tax ñi ay naafeq lañ lan moo leen di yóbbu safara ëllëg loolu la ñu borom bi di jàngal tey mu ne wa iza qiila lahum bu ñu leen waxee ñoom naafeq yi taalaw ñëw leen ila ma anzala allah ñu jëme leen ci li yàlla wàcce bu ñu leen waxee ñëw leen ñu dund alquran ñoo leen ñu attewoo alquran ñoo leen ñu xool lan la yàlla bëgg ci téeréem bi waaye du ñu yem ci wax leen ne ñëw leen ci li yàlla wax ak yonentam wa ila rasul ñëw leen ñu wax ñu seet mbir mii lan la ci yonent bi wax yàllaa ko yonentam lan lañ ci bëgg borom bi nee na raayta nga gis nga seeda say bët almunafiqina nafiqi yasudduuna anka sududa ñu lay baare di indi ay lay mais yàllaa ko wax waaye yonent bee ko wax waaye ñun fii dañoo yor diine boo xam ne xam nga ñun sunu diine nu róowul ak yooyu ngay dégg ñuy wax di baare yoonu yàlla ab julit suñ ko ne kaay ci yàlla li mu wax ak yonent moom xam nga lan moo war a nekk mbiram mooy anam rek fan la ko yàlla wax ak yonent jeex na tàkk su fekkee yàlla ko wax jeex na su fekkee yonent bi ko wax jeex na sunu borom loolu la ñuy wax su fekkee am ngeen benn problème bu ngeen lijjanti seen biir mu lënt delloo leen ko fa rudduuhu ila llahi wa rasul delloo leen ko ci yàlla ak yonent kon ay jullit noonu la ñuy def waaye tey lan moo tax ñu am problème ñun yëpp ci islam mooy am na ñoo xam ne d'accord nañ ñu julli d'accord nañ ñu woor d'accord nañ ñu jox azaka d'accord nañ ñu aji màkka waaye islam kenn du ko àtte wa sharia bi kenn du ko dund lu jëm ci àtte kenn du ci dugal yàlla lu jëm ci pas-pas aqida kenn du ci dugal yàlla loolu moo tax tey ñu am problème ku nangu julli nangu woor nangu aji màkka nangu azaka nangu nangu kooku war naa nangu ñu àtte woo ko ñu àtte ko ci li yàlla bëgg fekkee ne ab jullit la waaye tey jullit yi ci àddina bi li ëpp li ñu gën a bañ mooy àtte ci islam àtte sharia parce que jàpp nañ ne bu ñu àttee sharia tubaab yi ne leen yéen ay terroriste ngeen ay islamiste ngeen moo tax nangu nañ julli bàyyi leen ñuy julli bàyyi leen ñu woor bàyyi leen ñuy jox azaka bàyyi leen bu añ màkk jotee ñu dem waaye nag mbirum sharia kenn du ko àtte te loolu tax jullit yi am problème te jullit su nekkee ab jullit te du war teewa sharia naa féq lay doon parce que kenn mënut a nekk jullit sans sharia moo tax borom bi ne soo leen waxee wa iza qiila lahum suñ leen waxee taalaw ñëw leen fu ñu leen jëmee ila ma anzala allah wa ila rasul ñëw leen ñu jëme leen ci li yàlla wàcc akub yonentam mu ne raayta al munafiqina yasudduuna anka sududa nga gis naafiq yi commencé baare yoonu yàlla di ko utal ay lay lii septième siècle la woon lii tey buñ ko defee dañuy am gàcce nii nangam ak nangam lan moo tax ñu naan jigéen ñi nañu muuru lan moo tax ñu naan nangam lan moo tax jigéen ak góor ak jigéen duñ dama yooyu ngay gis ñuy wax te loolu li ci yàlla wax rek moo ci def moo tax yàlla dafa indi baat bi ci boppam mu ne raayta al munafiqin mu ne bayyana allahu taala sunu borom leeralal nu anna haadihi sifa al munafiqin nee na lii mooy melokaanu nafiqi wa anna man faala dalika aw talaba wa in zaama annahu mumin fa innahu fi gaayati al bu'di min al iman lii leer na nañ ay texte la ko yoo xam ne laajul commentaire képp koo xam ne woo nañ la ci yàlla li mu wax ab yonent nga bañ yow yor nga màndarga naafiq yor nga benn sifa ci sifaat man naafiq yi su fekkee nag da ngaa jëf benn jëf ci yii wala nga gëm ne yow ab jullit nga mu ne na nga yëg ne fa innahu waa jooju fi gaayatil bu'di min al iman moo gën a sori ñëpp ngëm yàlla gis ngeen moo tax nit ñi mënuñu dund sa sharia mbokk yi dañu bàyyi xel bu baax ñun ñëpp dañoo war a nangu yàllaa ko yonentam di ñu àtte moo tax ulama u tawxid am na ci ñoo xam ne catégorie boo xam ne yamale wuñ tawxid ci ñetti xaaj ñoom bi nit ñi di bañ a tudd ñoom dañ koo xoos ak seen i baaraam moom lañ tuddee tawxidul xaakimiya parce que àtte yaa yàllaa ko moom inil hukmu illa lillah yàllaa moom àtte lan moo tax tey ñu bëgg a dindi àtte ci biir tawxid jullit bu nanguwul ñu àtte ko ci sharia kooku lan mooy mbiram te ay àtte yu dëgër këñ ci la yàlla wax ci àtte yàlla wax na ne su ngeen bañee àtte woo li yàlla wax ñi ko bañ ñooñu ay fasiq lañ mu waxaat beneen aaya ne ñooñu wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulaayka kafirun fasiqun zalimun xoolal loolu nu mu doy waar bal sax yàlla dane subhanahu wa taala dafa giñ ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko su gaa yi bañee nga atte leen na nga yëg ne ay yéeféer lañ du ma nangu ne ay jullit lañ lu dul yow ñu nangu nga atte leen fala wa rabbika laa yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma sajara baynahum suma laa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu xam ngeen lu tol noonu yàlla waat ne ko du ma nangu mukk gaa yi ne gëm nañu yàlla lu dul ñu nangu ne yow muhammad alayhi salaatu wasalaam nga àtte leen kon mbokk yi ay mbir la yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax xam ne sunu boroom subhanahu wa taala li mu bëgg ci ñun mooy rek ñun ñu nekk ay jullit sunu boroom li mu bëgg mooy ñu nekk ñoo xamante ne du ñu nekk ay naafiq moo tax mu ne suñ leen waxee ñëw leen ci li yàlla wàcc akub yonentam nga gis naa fiqi di baare yoonu yàlla ci ay kàddoo ki lay ak a leeral yoo xamante ne teguwul fenn moo tax mu ne képp koo xam ne wax nañ la ñëwal ci lii nga bañ yow na nga yëg ne da ngaa sori ngëm yàlla tabaraka wa taala qaala al alaama ibnu alqayim hada dalilun ala anna man du'iya ila tahkimi alkitabi wa sunna fa aba annahu min almunafiqin sëriñ bu mag boobu ñuy tuddee ibnul qayim nee na haza dalilun nee na li dalil la wu ne weng wu leer lay wu weex tàll la ala anna man du'iya ci képp koo xam ne woo na la woo nañ la ila tahkimil kitab ñu ne la ñëwal ci téere yàlla bi ñu atte la ci ñëwal ci sunna yonent bi nga atte woo ci fa aba képp ku ñu wax ne ñëwal ci téere yàlla nga bañ ñëwal ci sunna yonent nga bañ borom xam-xam bi nee na annahu min al munafiqin nee na li wóor tey mbir waa ji ci naafiqi la bokk ndax jullit day nangu ñëw ci téere yàlla ak téere yonent ak waxi yonent alayhi salaatu wasalaam wax ji mu wax ne ci aaya bi yasudduuna ñu lay baare mu ne lii wasf la haza wasf wasf la boo xam ne ci rawatina ñi nga xam ne mimma yaddu ila al ilmi ñi nga xam ne dañuy wootewu ne ñoom am nañu xam-xam ba buñ leen woowee ci téere yàlla ñu ne xasbuna ma wajadna alayhi abauna ñun de la ñu fekk sunuy ndey ak sunu baay doy nañu jullit buñ ko nee yàlla nee na wala ñu ne ko yonent nee na wala ñu ne ko ñëwal ci téere yàlla wala ñu ne ko ñëwal ci sunna yonent dafa war samina wa ataana al imaamu malik nee na kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza al qabr nee na waxu ku nekk dinañ ko jël di ko delloo ba mu des waxu borom bàmmeel bi mu jël loxoom ndeyjoor daal di koy teg ci bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam imaamu ahmad nee na isa saxal xadis fa huwa mazhabi xadis bu wéree rek jeex na amatuma ci benn lay kon même ñoom ñi jiite ngir yi wax nañ ñu leer nañ ne su yàlla waxee ak yonent kenn dootu ci def comme commentaire kenn ci ñoom nee na isa qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras su yàllaa ko bi yonent waxee terminé kenn dootul waxati diw nee na sàmb nee na nee na lenn ci ñun wasf la ñu yàlla def daf ñu jox melokaan ñi nga xam ne fa innahum saddu amma tawjibuhu ad dalil min al kitabillahi wa sunnati rasul ñi nga xam ne dañuy ñëw léeg-léeg ci ñun di baare di utal lay yoonu yàlla bi ak sunna yenent ñu ut seeni lay seeni lay maam wala seeni lay baay wala seeni lay kilifa ba ñu sorante ak li yàlla ku yonent wax nee na ñooñu la yàlla di jox fii sif ay melokaan nee na la ci ëpp nag ci ay njuumte la ci nit ñi nga xam ne tey dañuy askanoo ne dañuy topp ay mazahib wala ñu topp ay yoon ba bàyyi li yàlla tabaraka wa taala wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokki jullit yi jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne dëgg rek moo koy yitteel du farfarloo du jéem a bokk ci benn kuréel moom dëgg moo koy yitteel su dëgg leeree ci moom mu jël fu dëgg nekk mu nekk fa loolu donc moo yitteel ab jullit waaye ab jullit warul farfarloo ab julit warul toppandoo ab julit warul gis mbooloo moo xamante ne mbooloo mi ci ay caaxaan lañ nekk mu daal di dem ànd ak ñoom nee na tey bëri na ci ñi nga xam ne dañuy askanoo ci ay imma yi ñeent di leen roy ci ay mbir yi nga xam ne dara jaaduwu ci ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñoom waaw jàpp ne seeni wax amul muxaalafa su fekkee seeni wax wér na dëppoo na ak alquran ak sunna loolu kenn werantewu ci dañ koy topp waaye bu fekkente ne wér yi wax ya am na ci luy ju lu ci juuyoog waxu yàlla ak waxu yonent su boobaa kenn ku nekk ci ñun dafa war a wax la gaay a waxoon mooy ñun kat la yàlla ak yonent bi wax doy nañu kon ay texte la mu ne lii qawaid ash-shar'iyya wa huwa almu'tamad indahum mu ne ñenn ñi nga yéen yenn saa yi ñu ne ñun kat lii ay texte charia la lii la ñu gëm daal di koy comme démb démb accidentellement seetaan fekke naa benn épisode ci wiiri wiiri démb accidentellement dugg ci benn kër rek ñoo fekk ñu koy seetaan ma gis waa ji ne ndaw si nga xam ne benn waay da kaa violé waa jooju après de ñu ne doomu kooku dafa war a ñëw takk ndaw si nga xam ne bàyyi waajaa ko violé xam ngeen loolu mu ngi ci théâtre bi ndeke man démb laa ko xam loolu mooy gis nga Sénégal ubbi nañ fi ay bunt yoo xam ne ci yooyu lañ nar a dugal nit ñi su su bii paasee xam nga lu ñuy indi nit day biiral nit ba pare daan ne mën naa takk doom ja ci yooyu lañ jëm même waa ja nga xam ne gis naa ko muy tontu samaratu daani la indi muy téere boobu di wax risaala nee na boroom xam-xam yi nee nañ lu araam mënta dindi woon lu dagan lu araam mënta dindi lu dagan loolu dëgg la xawaayida la waaye bàyyi joo xam ne dafa njaaloo ab jigéen violé ko dee doomam juddu ginnaawam wala doomam màgg ginnaawam ñu ne doom jooju mën na takk jigéen ji nga xam ne moom la baayam violé su baayam doon dund est-ce que dina ko takk ah maanaam baay ji ak doom ji ñoo bokk benn jigéen ah ci xel rek ci xel ci xel est-ce que xel nangu na ko li nga sharia dafa set dafa laab bëggul ñu ko tilimal pourtant bi muy tontu ci mazhab boobu mënoon naa indi yeneen mazhab yi liñ ci wax ay xool benn bi leen intéressé bi nga xam ne ci lañ bëgg a détruire dëkk bi yooyu la ñuy indi su su suñu théâtre loolu ba nit ñi nangu ko ñu daganal ko mu daal di jàll suba théâtre bu ñuy indi mooy benn waaye dafa biiral benn jigéen jigéen boobu daal di am doom bu jigéen doom bu jigéen boobu màgg ñu ne waaje day ñëw takk ko ñu indiwaat bu beneen beneen masala su ko defee ci yooyu la ñuy dugg di dugal ci xeet bi ci ay musiba ay giraawaali ba xeet bi dara lu araam mooy li nga gis léegi rek xam nga biiral takk gis nga léegi biiral takk da ngay biiral xale bu jigéen jour jour ngénte bi ñu ñëw takk gars yi ñëw mën a lekk ci laax yi ba suur këj dem seen yoon maa ngi fàttaliku bi ma nekkee xale fii yàggul dara ay années soixante-dix soixante-huit soixante-neuf soixante-dix soixante-onze ñu nekk ay xale yu ndaw ñu nekk daara di jalwaan ñu xëy suba rek sunu benn dëkkandoo di ngénte ñun xamuñ ci dara ay xale lañ ñu yelwaani suba gi bay ñëw war a jàngi ñu jaat ñu jàdd ca ngénte la bal sax dafa am kenn kuy jànge ci daara ji ku ñu ne woon suñu mag muy ngénte ñëw leen ngeen lekk ci laax bi rek ñun xam nga ay taalibe la ñu fàq dem lekk ci laax yi ba suur ñu ñëw ndeke am na ku dem ci sëriñ ne ko gaaya day taalibe yi day ña ngi ca ngénte la di lekk ci laax bi rek sëriñ bi mu ne inna lillahi wa inna ilayhi ndeke ngénte li ngénte ngénte bu dul sëy la doom jooju judduwul ci yoon sëriñ bi mu ne inna lillahi wa inna ilayhi ñeneen ngeen ñoo fa nekk ñu ne ko genn wàllu taalibe yëpp ñu lem sunuy tur ñun ñi fa demoon yëpp ñu lim sunuy tur sëriñ toog ci buntu daara ji di ñu xaar ku dugg rek mu ne la demoon nga ci ngénte li lekk nga ci laax yi daf ñu piégé lekk nga ci laax boo la lekkoo dañ fay indi laax nga ne lekk naa mu ne la taxal fee lekk nga wala lekkoo nga ne lekk naa mu ne taxal fe ba ñun ñu lekk woon ci ngénte lépp ñu pare mun nañu simmeeku leen mun nañu yoo baxe moon même lady yoo baxe moon dee même lady dégg ngeen loolu kon na ne woon pulaar mun nañu seen sikkim yi tëdd leen ci suuf seen sikkim yi ngeen teg ko ci suuf nii seen loxo yi dem ci ginnaaw ñun ñëpp ñu simmiñu keroog dañ ñoo dóor balaa xeeb dañ koo wàccu waaw gis nga lu bon nit ñi dañ ko war a bon taawanu alal bir wa taqwa wala taawanu léegi nag xoola suñu problème ngénte yooyu ñoo fi gën a xumb parce que kenn kenn soofalatu ko ngénte yooyu léegi ñoo fi gën a nàngam maire yi dañuy teggi ay nat xarit yi di cotiser ba léegi affaire bi amatul gàcce moo tax fu nekk ngay gis nit ëmb ki ko ànd ak heure takkusaan mu ànd ak ki ko ëmbal ñoom ñaar ñuy doxandu nga dégg waa jàpp ci loxo bi nga dégg ñu naan ndeysaan moom de gaayinam bi la àndal kële la xamoon ngeen ki ko ëmbal ñu ne ñu ne mu ngi ne la ñoom ñaar ñu ànd ci réew moo xam ne nee nañu réewu lislaam la ci noonu lañ ñuy toppee ci noonu lañ ñuy toppee ci noonu lañ ñuy toppee yu bon yi nga xam ne mag ñi dañ kaa séexlu woon bañ ko mu salte ci diine ñu ñu koy nangul di ñu ko nangul di ñu ko nangul di ñu ko nangul ba tey dootul nekk problème ci théâtre yi lañ koy jaar ci média yi lañ koy jaar ci ci kenn xamul di ñu ko rafetal di ñu ko rafetal di ñu ko rafetal maanaam chaque jour damay wax ne nit bu defee benn musiba ci sharia balaa ñu naan dagan na ci kii wala daganul kii dañoo war a xool moom waa ji lu ñu ko war a def ba pare benn waaye dafa maa woo téléphone mu ne damaa ëmbaloon benn jigéen ndax war naa koo takk ma ne ko balaa nga koy takk dañ laa war a wax yow da ngaa war a wax lan la sharia wax ci man ba pare ñu def loolu ba pare ñu jéem a xool takk bi nag loolu mooy wax bi soo ëmbalee waroo xalaat ne damay takk xam nga loo war a xalaat waa man lan la sharia wax ci man ba pare est-ce que yow loolu sariya wax ci yow nangu nga ko pourquoi nga bëgg a jël benn côté bi rek positif bi ci yow nga bàyyi négatif bi lu tax waxoon naa dem ca ca digg dëkk ba ñu woowaa dëkk bi yëpp ñu summi ma caw ma téeméeri yar wala bu fekkee damaa am yoo jabar ñu raj mu ma pourtant loolu sariya wax na ko lu tax du ñu nangu ñun Sénégal li ëpp ci ñun li diine daganal dong la ñuy jéem a jël daw laqatu ci te buñ ci amee intérêt waaye buñ ci amul intérêt kenn mun ta fexe ba ñu jël ko jamais tey jii moo ngi nii sharia ngi nii ñu ngi julli nangu nañ ko ñun ñëpp ñoo ngi woor ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi lu tax duñu àtte woo sharia quatre-vingt-quinze pour cent musulman pourquoi ñu ñuy àtte woo ci ay àtte yoo xam ne yàlla nee na loolu ku ci àtte woo ab yéefir nga lu tax ba ñu pare bu ñu paree incha allah question yi ñu ngi ñëw loolu ñun ñëpp ñun ñoo ci war a xalaat ñun ñëpp ñoo ci war a jàngat ñun ñëpp ñoo ci war a bokk yam xam ne dëgg dëgg dëgg ay jullit sharia la ñu war a dund mbokk jullit yi li doy waar tey mooy li borom téere bi di wax mooy fasaaral mutabiu li rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna ulaika gariba tey ki ne nañ dund sharia nañ dund alquran nañ dund sunna nañ bàyyi njaaloo yi nañ bàyyi bopp neen yi nañ bàyyi yaramu neen yi nañ bàyyi góor ñi ak jigéen ñi loxo nangam ak nangam tey képp kuy wax loolu da nga tumaranke da ngay tumaranke parce que da ngay nekk ci benn xur nit ñi nekk ci benn xur saa yooyu woote wu tey kaay leen ci li yàlla wax ak yonent noonu nit ñi ngay nekk kenn du la nangu sax jege ñëpp lay sori bala sax léegi ñu tuddee la ay tur bu njëkk ba moom lu ne lañ la daan wax tey moom ab terroriste rek la ñuy wax ne leen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mbokk yi ñun ñëpp nañu ànd déglu aaya bi dafa leer nañ fa tadabbar haadihi l aaya wa ma baadaha min al ayat ci dars yi passé aaya yooyu nga xam ne yàlla day dàq ñi nga xam ne dañoo wax ne mën nañoo nekk ay jullit sans attewoo li yàlla wax te borom bi wax ne wa anihkum baynahum bima anzala allah wala tattabi ahwaahum wahzir an yaftinuuka an ba'di ma anzala allahu ilayk wala wala yow yonent alayhi salaatu wasalaam man yàlla maane atteel nit ñi ca la yàlla wàcce bul topp bànneexu nit ñi mooy tandikul gis nga wala yonent bi yàlla ne ko mooy tandikul ñu fitnaa la ci seeni caaxaan ak seeni wax mooy tul de kan la yàlla di mooy tandikuloo anihkum baynahum bima anzala allah wàcceel seen diggante atteel seen diggante li yàlla wàcce wala tattabi bul topp ahwaahum seeni bànneex gis nga kon leneen lu ñu atte woo bànneex la li texte la mu ne wax zar hum mooy tandiku leen an yaftinuuka balaa ñu lay fitnaal mooy tandikul yow mu ne yonent bi balaa ñu lay jàpp naan la waaye waaye waaye waaye ba nga am yërmande topp leen kon aaya yaa ngoog mu ne aaya yu mel nii ak ya ko paase aaya yi nga xam ne yàlla day wax fala wa rabbika la yuminuun zaaru aaya yooyu aaya yi yàlla di wax ne wa iza qila lahum taalaw ila ma anzala la aaya yooyu yëpp mu ne dañ koo war a bokk càmbar ko daal di koy seetlu parce que aaya yi il faut ñu bàyyi xel ne alxuraan wàccul rek comme tey li xew balaa ñu koy jàng rek am ku dee ñu dajaloo def ay GIE groupe kaamil ñii di jàng fi wala aaya yi wàccul rek pour bu ñuy julli imaam bi neexal baat gaa yi jooy dem ñibbi non alxuraan dafa wàcc pour nit ñi dund ko kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur téere yoo xam dafa wàcc pour génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen leer afala yatadabbaruuna alquran xanaa du ngeen seetlu alquran téere la boo xam ne yàlla daf ko wàcce ci nit ñi pour ñu bañ a texee di taaha ma anzalna alayka alqurana li tashqa alquran wàcce wuñ ko pour nit ñi texee di dañ ko wàcce pour nit ñi dund kitaabun anzalnaahu ilayka la yàlla wax bal sax ci suratu yaasin yàlla dane li tunzira man kaana xayyan nañ ci waar nit ñi balaa ñuy dee kon loolu mooy téere bi il faut ñuy settantal di faram fàcc ay yàlla jox ñu tabaraka wa taala lan moo tax yàlla jox ñu téere bi téere bi ñëwul pour rek suñuy caaxaanu àdduna yi téere bi dafa ñëw ci dëgg pour pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk pour ñu mën a nekk jullit pour ñu mën a dëgg dëgg dëgg dëgg xam lan la yàlla bëgg ñu jëfe lan la yàlla tere ñu bàyyi loolu moo tax téere bi jóg waaye tey bañ defee téere bi téere barkeelu di ko jëmb di naan di takk ci suñuy ndigg def ko téere ñenn ñi sax tey xërëmkat dëgg dëgg dëgg yi dañuy jël ay yeneen ak yeneen di ko jaxaseeg téere bi pour nax nit ñi te loolu alxuraan taxul mu jóg kon mu ne aaya yu mel nii def ñuy wan lu bëree bëree bëree bëri ci nit ñi ñàkk dund bi ñu ñàkk dund diine min al iraadi an il xaq wa tarkil amal bi ci nit ñi dumooyu bi ñu dumooyu dëgg ak ñàkk koo jëfe mu ne tey loolu daf lañ koy jàngal dañ koy gis mu leer na weng suñu kanam bu ñu amee dëj ñun ñoom ñu jëli téere bi ñëw teg commencé tasaare ko est-ce que kii dee doon na jàng alxuraan est-ce que kii dee gëmoon na alxuraan est-ce que kii dee bëggoon na alxuraan est-ce que kii dee doon na dund alxuraan alxuraan du jëriñ lu dul ko ko doon dund alquran du jëriñ lu dul ku ko gëmoon alquran du jëriñ lu dul ku ko xamoon waaye da cay mën na nekk ab musicien mën na nekk ab ab ab ab ab ab mën na nekk lu nekk su dee rek nga gis gars yi daw parce que dañ ci am poñet dañ ci am poñet léegi kër koñ boo dem lu fa ëpp am na GIE benn GIE benn groupe kaamil bu fa nekk ku dee ñoom ñooy ñoom la ñuy woo nga jël say nit ñëw yenn saa yi sax nga gis ku ci juux ñu lay siis bañ la cee jox ci jukk yi suñ demee ba alxuraan loolu lay nekk suñ demee ba alxuraan loolu lay nekk loolu musiba moo ñuy daal te alxuraan loolu tax ko woon jóg dañuy dugg ci aaya ba yàlla wax ne ya rabbi inna qawmi ittaxazu haza alquran mahjura nit ñi day gàddaay nañ alquran nit ñi sànni nañ alquran seen ginnaaw ci loolu la ñu aaya yi di jëmee mbokk julli suñ demee ba tey nit ñi dummuy dugg yàlla bi bàyyi ko bàyyi koo jëfee fi aksaril waaqia ti cay suñu société nii ñuy dundee jël alxuraan teg ko côté maanaam sax da nga gis sax ñi jàng alxuraan ndeysaan ñoom lañu ñoom ñooy nit ñi yërmande yi nitu yërmande yi nitu yërmande yi mooy ñiy jung alxuraan tey sax ci suñu société boo amee doom nga wax sa ja soxna man dama bëgg sama doom ji ma yóbbu ko daara mu jàng alxuraan da ngay gis soxna si jooy waa kër gi jooy yenn saa yi sax ci mbokk yi am ñu la bàyyi naan xale bi boo ko yóbbee daara yi ñu bàyyi la affaire yooyu mooy lan gëm ne tey ku jàng alxuraan ci Sénégal da ngay torox wala da ngay alku wala doo tekki tey sax tane na tuuti mais démb dañ ko daan woy sax dañ ko daan woy ci sunu théâtre yi gars yi joué nañ fi ay théâtre sax pour bu kenn yóbbu nit doomam daara gars yi joué nañ fi sax ay théâtre pour diaboliser nit ñi ci diine am na benn woykat seen benn woykat bu jigéen bu daan wax ne yaay booy ñemewu ma ko xaw ma dama koo ragal kutur satalaak kurus xaw ma kaalaak sikkim du loolu la doon way yéen ñi dund tuuti ay at yu ndaw yaay booy ñemewuma ko dama koo ragal yan la lim noonu la yan la lim ah satalaak kurus kaalaak sikkim kan moo koy yore melokaanu kan la yaakaar naa seetaan ngeen fi théâtre Thierno ndongo daara Thierno bañ ko yóbbee daara mu jàngi nga xam ne ñibbi si mokkul lul tabbat ya daa xaw ma benn baaye boobu dong la mokkal loolu ci ay jullit yu gëm yàlla gëm yonent di woote ne ñoom dëgg dëgg dëkk ba yëpp dëkku islaam la di tiitaroo ay kilifa diine ñu mel nii nu mel ah sorante ak kilifa diine ya dëgg dëgg dëgg kon fan lañ jëm kon lii mbokk yi darsu tey benn aaya la woon ci kitaabu tawxid bu yàlla subhanahu wa taala doon ñu faram-fànceel di wax ne wa iza qila lahum taalaw ila ma anzala allah wa ila rasul raayta almunafiquna yasudduuna anka sududa ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh